ne moo xam fii nii eh, ci réew mi wala ci bitim réew da nga ci mën a jaar ngir rek eh, dugg eh, ci waxtaan wi waa ilaa itam ah su ñi nga xamante ne ñoom waxtaan wi bëgg nañ cee bokk waaye nag des fois da leen jafe ñu woote téléphone mën ngeen envoyer message à travers le chat en direct wala sax nga daal di bind message rek ci commentaire su ko defee dañ la ko daal di jàppale donc Lamine Fall moom loolu la daal di def ne le 17 lañu ñu soxla xeex bu métti métti donc Lamine Alioune Fall loolu la daal di euh, xalaat jaaree ko ci chat en direct su nekk am na ko bëgg a bokk ci waxtaan ah, rek waaw salaamaaleykum aleykum salaam waaw sër maa ngi lay ziar baax euh, Diallo na ngeen def waaw ñu ngi sant yàlla baax di rafet sa liggéey macha allah merci beaucoup di kontaan ci yow naka journée bi waaw non ñu ngi sant yàlla baax ñu ngi sant yàlla baax di rafet seen liggéey baax a baax vraiment gàcce ngaalama merci beaucoup acca bismillah waaw ñu ngi leen ñaanal jàmm rek di wax ni na Sénégal yi yow hmm. ndax man dama ne woon politique mu dootul waaye damay yee ñi nga xam ne sama mbokki taalibe yi nga xam ne ak sama mbokki jullit ak sama mbokk yi nga xam ñun ay néew ki doole la ñooñu laay waxal xam maa ñoom na bokk kuréel mm-hmm. yi ñoom ñëpp a yem si seen neuf Macky Sall Ousmane Sonko parti Sonko ñëpp noo bokk ndey ñoom na bokk baay mm-hmm. gis nga ñii leen xeexloo képp ku ci xeex maa ngi lancé un appel seulement bu subaa ak boo dee sa rajo bu fi kenn génn sama doom sama doom moom laa kaaro nan téye seen doom yi ñoom ñëpp a yem ku la ñoom ñëpp dañuy nax Sénégalais yi bu nu añee ba fa ñoom la ba fu ñuy réere hmm? parce que bul buy tourné la rek boo xool yii am yëpp moo lay wane ñoom ñëpp nee naa Ousmane Sow ak Macky Sall réeruñu tey Ousmane Sow tey ñu tey jël nañ ko na tey nee neen na moo lay wane ñoom na bokk ndey na bokk baay Ousmane Sonko nañu dimbali ñu wax askan bi wax ñi nga xam te moom lañ bëgg moom ñoom noo ko bëgg mu wax leen dëgg gi Macky na génn wax askan wax leen li nga xam tooy moom la askan wi bëgg mais ñu nax Sénégal di leen nax ñi nga xam amuñu kal amuñu daal ñu lay nax ñu naan dañuy génn dem xeex wala dañuy génn def nangam continuer da ngay perte rek mm-hmm. gars yi nen nen faatu seen jàppale kenn ku ne jàppale say waajur mm-hmm. kenn ku ne jëm a xool ba dimbali koo tere nga dimbali te yàlla tax ku ne am nga rakk boo war a dimbali nii ñuy jugee di xatraay ku nekk naa nen xeex nan def nangam buñ xeexee réew amul benn réew bu xeex di defar mm-hmm. réew yi xeex réew yi am xeex yëpp réew yëpp a dellu ginnaaw ku weddi nga dem laaj waa Libi ko weddi nga laaj yeneen dëkk hmm. Sénégal mi ngi noonu ci réewum jàmm ñoom ñu ngi ci réewum teraanga la te jàmm nga fa nit ñi ne noo bëgg di am jàmm ku bëgg nag yaa ngi noonu. waaye naa jóg nu xeex jóg nu xeex amul bopp amul genn loolu lu ma doon leeral la rek pour Sénégal yi xel bu baax a baax a baax. Hmm. kon da nga xam ni politiciens yi ñoom ñëpp a hmm. waaw. ma ne ko da nga ne ci suba ci la décès bi kon yow daal euh, message yi nga xamante ne ay mhm. farandoo Ousmane Sonko ñoo koy euh, lancé ngir rek euh, seen i partisans mhm. mobilisé wu daal di vraiment xeexal ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko ngir àtte yi nga xamante ne xëy na ni suba war nañ joxe yéen ci ay verdict vraiment mu nekk loo xamante ne ñoom dañ ca amee satisfaction ndax kon yow da jàppe ne loolu warul am ñoom ñëpp mën a ñëw ku mu neex mën ngaa génn parce que dafa am loo xam mën ngaa génn sans problème nit ki mën ngaa génn wala booy génn nga demee sa xel booy xeex xel xeex xam-xam mhm. mais xët-xët amul njëriñ tey boo dee yàq doo yàqal gouvernement bi yaa ngi yàqal benn sa moomu Sénégal bi nga xam ni dafa ñëw di yenu ay saako ba am bidigam wala nga yàq sa moom Sénégal bi nga xam ni dafa yelwaan ba am li mu am nga ñëw taal ko yàq ko koo yàqal gouvernement yaa xool sa moom Sénégal nga yàqal nañ wax tey ñuy taxaw fi yow ne ñëw ne xeex amul kenn kuy génn xeex da ngay saaw ci mbir bi rek di wax a sa tur ñëwoon da ngay xeex yow laa tudd Abdou Fall laa tudd maa ngi dëkk Ngaye Mékhé maa ngi a dem xeex mhm. maa ngi def sama tur naan gé Sénégal ne génn xeex dañuy xeexee la léegi nga xeex koy da ngay yàq état yàqaloo état yow mooy sa morom Sénégal bu liggéey daan doolam te yéen boo xool bi soor la ku nekk mën ngaa génn ñëw taxaw tàcc ki nga àndal ndax kenn ko am ak koo bëgg mais gis nga politiciens yi ne leen gars yi sénégalais yi moytu te ànd seen xel ñoom ñëpp a yem billaay wallaay ma la wax lii ma la wax du dañ ñoom ñëpp a yem suba Ousmane Sonko Macky Sall ngi fi loolu koo xam ne lii mu sam si àdduna te dina am képp gis nañ ñëpp gis nañ fi Macky Sall ak Ablaye Wade ñëpp gis nañ fi Macky Sall ak waaye Khalifa Sall ñëpp

politicien bu ne tey yaa nga jël sa say famille sa famille muy say yaay ak say doom nga teg leen ab kii bu normal ñuy lekk-lekk bu neex di lekk na yéen baadoo yi nga xam ne yéen boo léegi ku fàllu amuleen si leen ngeen di gagné ñu rey leen amlee seen a hmm. wax pour dootuma am naa droit tamit wax li nga xam te bëgg hmm. naa hmm. yeew d'accord mm. léegi bu nga laaj mm. un euh, ci euh, li nga xamante ne aussi moo xew ci milieu médiatique bi ndax euh, ginnaaw manifestation yi fi ajaroon na am am na benn journaliste boo xamante ne <coughs> ah bàyyi nañ ko xel lool mu di Pape Ndiaye kàddu yi mu yëkkati yow ba jàngat nga ci def Pape Ndiaye normalement waxuma la sax ñu ko doon ko noq duma ko ay yëpp ah déet gis nga gis nga saay dafa am na réew mi ñu ko war a wax gis nga réew mi képp ku fi ay ak commentaire laa war duma man gis nga ne ma dama la wax politique laa bàyyi teg dëgg yàlla tax Pam Ndiaye ba kirim ku ma àndoon du ñëwee du waa Pastef bi tey mu ngi ñëw bëgg a daa di daa defaat compte carré moo tax ni mooy li ma nii gis benn genre lubi la neexal nañ ko xaalis nañ ko wax dëgg gis nga ñu wax xaalis nañ ko wax te dee dañ koy jox xaalis moo tax muy mbap mbap moo tax policiers yi ñoo garaaw ñoom mooy bëgg Sénégal yi tournement benn page fi na ci tey page Pam Ndiaye la gars jël suba fii la ñuy waxtaane ba seen bi bu jàllee nu nu Pam Ndiaye indiwaat keneen moo leen dafa am xam c'est pas des jour ñoom duñuy journaliste ñi ñee leen jàpp mais duñuy journaliste tax a moo fa man moo damay xeex bis ba ne dina leen saa boo waxee du xam fi ngay waxee dafa xam ne parce que amuñu xel Pam Ndiaye mii nañ wax ne mais normal waroon fanaan këram bu dee xamoon na ko pare noppee moom loolu dañ ko si wax dëgg te yàlla takku dégg sa bàmmel nee na xamoon am na ñu koy wax di président am na ñu ko dañ ko a Mhm. même bu ko waxee sax muy dëgg dañ ko waroon jàpp yaa daf ndax moom raylu na ay doomi jàmbur kon moom ñu raylu Sénégal yi moom ci la bokk man sama àtt la dëgg laay wax ni Sénégal yi Pam Ndiaye ci la bokk ni nga xam te noo yàqule Pam Ndiaye ci ni nga xam te noo ñàkk seen alal Pam Ndiaye ci la bokk ni nga xam te seen liggéey yàqu na à cause de loolu Pam Ndiaye ci la bokk parce que xamoon na ko xam ñu ko doon def mu noppee moom kon kon ñu yàqu moom moom ci la bokk li seen wax dëgg sa Sénégal la ci des mais hmm. Sénégal li ñuy jëm ni mais bu ndax dëgg yaa parce que du kees man d'accord ma tey état boo ànd ak état loolu neex bul def loolu baaxul lan nga wax nit ki booy aat ne laa dëgg te yoon te def peut-être dañ ko waroon dem yóbbu ko prison tëj ko parce que def lu xam ni yàqal nañu bari tooñ nañu bari parce que même boo ndax lu ma xamoon waxu ko loolu rek kon hmm. boo lay wan mooy la hypocrite lañ ko mën a jàpp kuy jàpp hypocrite ne Sénégal yi di yàqal xelu Sénégal di def naa man boo soo bu ko kenn saaga loolu gars yi portefeuille wax ñan la. d'accord na parce que moom moom comme ko xam ne wax ko nekk ba tey mu taxaw naa yi xam naa ñu ñu opposition bi te ba kii mu ngi doon jàppale opposition bi lu wax mu ne Macky di di di xas. Mhm. gis nga nit ñi nan nit ñi di àtte ji gis nga gars yi bu dee dañu leen mën a wala am fu ñu leen yeew tax ñuy wax lu am du dëgg di ndax askan bi di leen ay doomi jàmbur ne Sénégalais yeew ànd xel maa ngi jaar ñëpp nag merci merci Fall. di ñëpp képp xam a wér ak ku ah, ba zëpp. d'accord xam naa sama gémmiñ gi ñaata ma yàlla ci wax si politique. lépp lu ma xam ne am naa Sénégal la am naa intérêt di wax pour Sénégal def Sénégal sama doom samay njaboot nu nga fa samay soxna nu nga fa samay waajur nu nga fa fa la am lépp sama tànn am. Mhm. kon am naa droit Sénégalais bu ñu génnee débat bu ñu génne ma wax samay Sénégalais yi xam ni ñi am xam-xam te nàmp ñu sama xaj di ma dégg ñooñu lay waxal waxuma ne ñi xam ne nàmp ñu waaw jërëjëf wa salaam. ah merci euh, di ko jaajëfal bu baax a baax moom euh, Abdou Fall ah dégg ngeen moom boo nee na wax waxi waxi politique moom moom daanaka raxasu na ca ba mu set ndax moom nekkoon na ko xam ne vraiment ci ay jamono moom ay saa su rek gars yi moom ligne bi day daal di tàng donc di jaajëfal bu baax itam ah, Binta Sarr euh, Rabi Diagne Sonko ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Ah, waaw salaamaaleykum Gomez ak Ibrahima Playa mi soog a gane si waxtaan bi. waaw sëñ bi ñu waay na koy tey. ñoo lay delloo ziar di